asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante saa suñuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions tey ñu koy présenté ndaxte ki nga xam ni mooy ma jigéen dafa ne ci ay yitte tax tey ñu war leen a présenter li nga xamante ne bi moom la ñuy wax l'émission des émissions di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi nekk ci biir réew mi mais aussi di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk ca bitim réew parce que nekk nañ ñoo xam ni seen xel ak seeni xalaat. lépp mi ngi ci réew mi wane nañ ko ci seeni jëf nit ñi di gis muy ni nga xamante ni noonu la yore économie réew mi muy liñ ciy def am solo lool nga xam ni buñ ñee Sénégal metti na buñ ci roppi woon seen loxo mu gën a metti kon ñi ngi leen di ñaanal fañu ne yàlla na sunu boroom dolli seeni xéewal yokk seen sutura mbokk yi ak xarit yi tey dañu war a waxtaanee ay mbir yu am solo ndax ku nekk ci ñun xam na ni nga xam ne noonu lañu ñu dippee émission bi muy l'émission des émissions muy maanaam li nga xam ne xew na ci pénc mi ay émission ak i invité yoo xam ni amal nañ ko ñu teg ko ci taabal ji ginnaaw ñoom bi ñu joxee seen xalaat ak seeni gis-gis ci réew mi ba noppi tey dinañ waxtaanee ki nga xam ni mooy maître El Hadj ci ab plateau télé boo xam ni maître El juuf dem na fa laaj nañ ko ana lan mooy programme am wax na la mu wax daan ci joxe sunu xalaat ak sunu gis-gis daañu ñëw ci ki nga xamante ni aussi mooy Mame Boye Diao laaj nañ ko moom Mame Boye Diao ci am amam ana lan la am wane na la nga xam ni moom la am wax na joxe tamit ay gis-gisam ak xalaatam incha allah daañu joxe tamit sunuy xalaat ci kaw bi nga xam ni joxe nay xalaatam ba pare keneen ki di Siré Sy mi nga xamante ni moom it yëkkati na ay kàddu wax ne juróom benn candidat ñoo war a am mu lim leen lan moo sabab lu ni mel lu tax mu lim ñi nga xam ni ñoom la lim lum xam ak fu mu ko xamee wala dafa am loo xamante ni bii moom la bëgg ba tax muy wax lu kenn ñemewut a wax lu tax mu di ko wax loolu yëpp incha allahu rabbi daañ ci ñëw joxe ci li nga xam ni mooy sunu gis-gis ak sunu xalaat dañuy njëkkee ki nga xam ni mooy maître El Hadj Diouf ginnaaw ñu déglu ko ci plateau ba nga xam ni fala nekkoon di TFM ginnaaw bi ay laaj jibee dox ci digganteem ak ña nga xam ni ñoo doon def émission ba amal na ay tontu ñu déglu ko a ñëw. yow ban vision nga am pour Sénégalais yi déjà. est-ce que man dama euh, nekk am formation marxiste-léniniste. Baba gisee yàlla na yàlla yërëm ak Babacar Sané formé ma mu Mbaye Diack. Ablaye Bathily Mamadou Ndoye. Amara Ndiobou Sarr Mamadou Diop Castro. Bakhaw Seck du Tursas. ñuy def minute politique. de formation idéologique. toj le capital xam na la mooy outil de travail lan mooy force de travail lan mooy plus-value jàng Lénine l'état et la révolution defal na xam lan mooy sow xoos lan mooy kol xoos xam lan mooy les samedi communistes ñun dañu am formation dégg naa kii li wax léegi nii ñëpp yemuñu am na ñoo xam ba léegi ñuy téye seen formation bokk ñoo ñu naan gat sa gat sa loolu comme formation jàng ñu dara lu may saaga ndey Chérif Dia waxul leen neex ñu saago léegi réseaux sociaux yi ñun xamuñu woon saaga ñun c'est le débat d'idées moo sur le plan des idées formation bi ma am parti des travailleurs et du peuple je mets sur le travail daqale jël laaj locco yi ñii di xaru ñii di dee ñii di rey seen bopp xam nga lu tax imaam yi sax ngi dem fële nga lu tax parce que le travail lañ privilégié wul bi ma jógee créé parti du travail jóge ci parti travailleur LDMBT Ligue démocratique mouvement pour le parti du travail man maa bëgg sama conception boobu créer parti des travailleurs. sama vision mu ma décliné ko ci. les producteurs dañ leen a war a valoriser. c'est-à-dire les travailleurs. de tous les pays comme ni unissez-vous. comme producteurs de tous les pays unissez-vous. mais les travailleurs là léegi. dañuy dem ci usines yi. te sama conception mooy usine dafa war a am dans chaque département. bindal une grande usine bu ñu defee une centaine de milliards. jërëjëf El Hadj Modou am mbégte ak kontaante maître El kàddu yi mooy yi nga xamante ni bi moom la yëkkati ban vision nga am pour réew mi Maître Diouf wax ñu moom mooy kan ak fi mu jaar ak li mu doon wax ni programme am bokkut ak ñi nga xam ni ñoo naan gàtt sa gàtt sa mais ñi nga xamante ni bi tey fi mu defee de mooy ñi nga xam ni dañuy wax ni gàtt sa gàtt sa laataan ñuy wax gàtt sa gàtt sa dafa am bi ñu leen laajee seen programme dañu toog ci pénc mi bind livre daldi ciy jël livre ba jagleel ko Sénégal pour wax secteur bu ne ana lan ak lan lañ fa prévoir mu nekk loo xamante ni bi ba tey jii ku dem jënd livre boobu nga xam ne mi ngi tudd solution di nga gis vision bi nga xamante ni bi tey ñi muy wax ni ñoom lay wax ni gas sa gat sa lëy seen vision ci réew mi ba tax ndaw ñi topp leen maître El Hadj Diouf programme am biñ ko ko laajee bu fekkente ni da nga wax ne danga bëgg a yor réew man dama jàpp ni li gën a sérieux mooy nga defar programme boo xamante ni bii tey bu la ay nit waxee lan mooy sa vision pour réew mi nga delloo leen ci li nga xamante ni bii mooy li nga bind ngir sa programme wax leen ne leen def naa lii ci lii lii ci lii lii ci lii mais ki lay laaj sax boo seetee dafa la jël rek maanaam pour nga paqueter mbir yi mais candidat kenn waru ko laajee nii programme dañuy ñëw maanaam teg ne njàng mi loo nar ngir njàng mi nga war a mën a convaincre nit ñi ci wàllu njàng mi ñu teg fa ñoo xamante ni bi tamit seen spécialité day nekk ci wàllu njàng maanaam c'est ñun journaliste journaliste yi ni nga xam ni noonu la ñuy defee ñoom journaliste yi ni ñuy defee liggéey bi man dama jàpp ni des na bu ñu bëggee yëf yi gën a sérieux nit ñi gën a jox gëdd li nga xam ni moom la ñuy laaj bu ñuy xamale ak candidat dañ ko war a laaj ci secteur yi nga xamante ni bi moom lañ ko war a laaj yi ñu ni mooy liy doxal réew lu ci mel ni njàng lu ci mel ni santé lu ci mel ni sécurité lu ci mel ni et cetera et cetera lu ca ne buñ koy laaj ñu jël journaliste yoo xam ne maîtriser nañ mbir mi ak ñi nga xamante ne bi tey ay nit lañ yuy pratiquer mbir moomu ngir ñu ñëw déglu ki nga xamante ni kii moom la ñuy déglu loolu li ma gënoon a impressionné ci mbir Ousmane Sonko bi muy def li nga xamante ni bi moom mooy ndajeem moomu ci place de nga xamante ni bi journaliste yi toog nañ di ko laaj loo nar ci presse loo ci bind loo def ci lii muy expliquer di wane ni livre bi lii wax na ko bi ak loo xamante même bu fekkante ni àndoog moom wala bokk ak moom gis-gis mais di nga xam ni nit la koo xam ni li muy def defu ko rek ngir comédie mais ay ngëm-ngëm la yoo xamante ni bi teg na ko ci taabal ji donc bu fekkente ni bi tey sénégalais yi tamit am na bët boo xam ne ñi ngi ko koy xool c'est parce que bi mu ñëwee topput fi ñëpp topp parce que bu ñu leen ma joxee réew mi dinaa defar sécurité bi dinaa defar njàng mi dinaa defar li nga xam ni mooy paj mi loolu du looy wax rek sànni mais da ngay expliquer nit ñi ana nan nga ko nar a defee fonds yi nga xamante ni bii tey moom moo war a def li ngay def fan nga ko war a jëlee loolu c'est très important pour que ñu koy laaj ñi nga xamante ni bi ñooy candidats yi sinon dañuy dugaat rek ci comédie parce réew mi dafa toll foo xam ne bu ñu fa tollee mbirum po ak caaxaanee laaj réew dafa war a dakk dañu war a gën a tey ci jamono jiñ ñu toll nii bañ a privilégié li nga xamante ni bii moom la ñuy wax reetaan beeg folklore gi te ñëw ngir tànn candidat yi ci anam boo xamante ni bii dana gën a sérieux ba boo koy laaj yow journalist bi nga bañ a laaj nit ki tamit lekk ngir euh, ñu laajee ko noo xamante ni bii rek teg nit ki rek ne ko. loo nar pour kii bi mu daa wane moom ay jaar-jaaram te fekk ne ay jaar-jaaram taxu ñoo jóg parce que xam nañ jaar-jaaram li ñu tax a jóg ak li nga xamante ni bii moo ñu yitteel mooy lan la nar ci réew mi ak naka la koy defee c'est très important nga wax li nga nar ci réew mi mais boo waxee li nga nar ci réew mi ba noppi ak ni nga expliquer les Sénégalais ana naka nga koy defee ci jamono ji nga xamante ni bii moom lañ toll nii mais bu fekkee ne dañu topp folklore gi. nekk na loo xamante ni bi vraiment du nekk lu baax mbokk yi ak xarit yi ginnaaw bi ñu jógee ci ki nga xam ne mooy maître El jouf am nañ teewlu aussi tamit ci ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Mame Boye Diao ci invitation boo xamante ni bi am na ko ci wal fajëri jàkkaarloo ci ki nga xam ne moom la ñuy wax Pierre Edouard Faye ak Moustapha Diop ñu àndandoo teewlu yan kàddu la yëkkati je vous Mais aujourd'hui, moi je vois des hauts fonctionnaires qui sont moins bien payés que des chauffeurs d'une agence. Et vous pensez que c'est normal des administrateurs civils. des magistrats parce que débat bi euh, fan yi yëpp ak approche élection yi mooy ces fonctionnaires milliardaires ñëpp ñu naan oui fonctionnaires milliardaires euh, investisseurs des impôts et domaines. qui viennent pour l'essentiel des impôts et domaines. impôts et domaines voilà ñëw ñoom ñëpp ñu bëgg jiite Sénégal yow tey man de Mame Boye Diao def naa suma déclaration de patrimoine mu ngi OFNAC moi je vis dans la même maison depuis au moins quatorze ans et séquentiellement j'ai fait cette maison maanaam R plus la woon mhm. après ma defaat ko yokk benn étage <laughs> nga daw des descos <laughs> nga des descos def benn affaire bu sew xam nga ba nga egg fu nga egg d'accord c'est là-bas que j'habite depuis 2010 Je, si on me connaît un palais à Dakar, on n'a qu'à le dire. Si on me connaît des en Europe, on n'a qu'à le dire. Si on me hmm. connaît des comptes offshore en Europe ou au Sénégal, mais qu'on hmm. le dise. Hmm. mais waroo yeewu rek taxaw parce que rek nit ki bu amee ñetti dërëm dina jël dërëm bi bokk askan nga ne milliardaire. débat bu dafa intéressant Mame Boye Diao parce que. maintenant euh, aussi quand on a des instruments de mesure loolu laa gëm. Mhm. les instruments de mesure sont nos instruments de vérité. Mhm. en tout cas que prétendre un directeur à la DGID mhm. di nga def sa déclaration de patrimoine moi je fait bi may jógee DGID dem fële tamit def naa ko donc loolu moom war mhm. c'est tout Mame Boye allah yëkkati na ay kàddu wax ngir indi ay leeral ci laaj bi nga xam ni Pierre Edouard laaj na ko ko ci wàllu alalam ne ko ndax da ngay confirmer ni milliardaire nga wala doo milliardaire Moustapha Diop wax ko ne ko gis nañ ñu bari ñu jógee impôt domaine jekki-jekki rek bëgg a laaj réew mi fonctionnaire yoo xamante ni bari nañ alal torop ci biir wax ji Mame Boye Diao wane na ni amul alal mais ci kaw mu ñuy wan ne amul alal daf ñuy wan ni moom it nit kuy naxe la ak dugg ci loo xamante ni ak lëndëm la parce que ay kàddoo moom moo ñu wax loolu parce que dafa wane ni benn kër la am boo xamante ni bii mu ngi ci dëkk euh, depuis 14 ans mi ngi nekk ci kër gi R plus 1 la woon mu ne après mu yëkkati ko dolli ci benn étage boo xamante ni dafa làqatu def affaire bu sew ni mu ko waxee laay waxe daal di def affaire bu sew naxante ak ñoom ba. def li nga xam ni mooy R plus 1 maanaam bi muy tabax R plus 1 jaaralewu ko moom ci biir waxam ak njub maanaam la mu war a def defu ko te la mu war a def euh, bu fekkente ni bi jaaralewu ko ci njub loolu aussi tamit dafa am lu muy wane ci koo xamante ni ki yaa ngi taxaw ngir laaj réew mi loolu dafay tax ñu mettraat en cause li nga xamante ni bi moom mooy déclaration de patrimoine ndax tamit defut affaire bu sew comme ni mu ko defee waa Descos ba am lu mu wane loo xamante ni bi mooy déclaration de patrimoine bi jaarale leen fi muy jaarale noonu muy defaat affaire bu sew boo xamante ni bi mooy mën a tax ñu ne Mame booy Diao mii lii la am fekk am na plus ko li nga xamante ni bi moom lañu ñu wax pareen saay boo dégloo nit ñi ñu wax li wolof di wax naan ku wax feeñ bu ñu waxee rek nga seetlu ci biir wax ji di mën a gis léeg-léeg nit ki mooy kan parce que nit ñu bari dañuy toog ci plateau yi ak masque liñ la bëgg wan lañ lay wan ci kaw nga gis leen mais boo leen dégloo ci seeni biir wax léeg-léeg mu am moo bu ndaw bu leen di trahir ci seen biir wax muy wan la rek ne la ni nga xamante ni bii tey noonu lañ ñàkk a jàppee sérieux yenn branche yi nga xamante ni bi tey ñooy yi nga xamante ni bi ñoo yore mbirum nguur gi ni nga xamante ni noonu lañ ko ñàkk joxe cër parce que defe naa ni képp koo xam ne taxaw nga di laaj réew mi war na am noo xamante ni bi war nga ko wuuteeg benn saa njoogu boo xamante ni bi mi ngi toog de côté di a lijjanti moom nu muy dóor dàqee nu defee yenn yi mais yow bu ñuy demandé saa mu jub yow dañ la dañ la demandé nga romb li nga xamante ni bii mooy ak njub maanaam loolu mooy li nga xamante ni bii mooy di ëpp solo parce waroo yam ñu bari ci réew mi maanaam da nga war a dépasser ñu bari nekk ci benn niveau boo xamante ne bi mooy tax nit ñi war laa mën a tànn xam ni yow tànn nit nga maanaam dañ laa tànn dañoo segg segg segg ba xam ni ginnaaw bi ñu tànnee ñenn ñi ba noppi ñu seppi la wane ni kii kat bokk na ci ñi gën noonu la ñuy tànnee li nga xam ni mooy am njiit mais am njiit moo xamante ni bi tey bu fekkee ne dañ koy tànn bu ñu xoolee gis ni lu bari moog ñépp a ci yem na ko ñëpp di defee lañ ko defee kooku warta nekk nit koo xamante ni kii war na doon ab choix rawatina nag ci lu jëm ci wàllu réew ngay naxanteeg bànqaas yi nga xamante ni bii tey ñoom la ñu teg ngir ñu saytu yenn yi balaa muy am waaye ngay naxanteeg ñoom ginnaaw bi nga ko defee ba nax leen mais am nga sañ-sañu taxaw ci plateau wax ni ñoom laa naxanteel def leen lu sew ba mën a teg li nga xam ni moom laa teg loolu day taxaat ñu jëlaat sa déclaration de patrimoine daal di ne est-ce que dëgg-dëgg la nga wax loolu la loolu mooy li nga xamante ni bii tey gis nañ ko ci kàddu yi nga xam ni Mame Boye Diao yëkkati na ko mbokk yi ak yi dañuy seeti ji ki nga xam ni moom la wax Siré Sy kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko moom itam. jëmale ko ci élection yi nga xamante ni bi ñu ngi ciy jëm mu am noo xamante ni bi noonu la ci waxee ba listixaaral ñu wax ñu ñaata candidat ñoo war a dem ak kan la ak kan mu nekk loo xamante ni bi tey wax la ju précis ñu daal dee ànd ak waa Rési seetaan Siré si kàddu yi nga xam ne moom la wax je en prie ñoom seeni pexe cinq à six candidats nañ fi nar a autoriser mu bokk élection yi. cinq à dont le candidat du PDS. Khalifa Sall. Idrissa Seck. Amadou Ba. Mm. le du PUR. docteur. waaw on est un deux trois quatre cinq sixième bi Malick Gakou pour. mën a dulier affaire yi quoi xam nga li ma la. Ah, ah. voilà pour mën a dulier affaire yi ne eh, du ñëpp nañ te am nañu jàll ak yooyu pour que ci kii bi ñoom ñu defi seen i pexe pour proclamer Amadou Ba vainqueur au premier tour. waaye président Macky Sall <laughs> oh, kooku du ñu ko nangu. laa la la lii loolu. li ma for ci wéyum mbéy. oui wuu jàmbaar. mais ana ñeneen ñëpp. waaw très bien moo tax. yéen opposition bi encore une fois bu ñu lancé sunu front de l'opposition bi dinañ ci communiquer front uni de l'opposition ñu ngi leen di ñaan ñëw leen ñu ngeen signé chart bi ñu àndandoo xeex. gis nga bu ñu bàyyee Macky Sall dal ci kenn. ñun ñoon ñëpp ku ne toog sa coin di lijjanti say parrainage. dana dal ci ñun ñëpp am lu mu fi bëgg. def ko fi par force on n'aura que nos yeux te fi toll nii nag jot na ñu doon say. Siré Sy. <laughs> Eh, Siré macha allah ji nga koy nuyu de passage kuy faral di joxe xalaatam ki gis-gisam ci pénc mi la kuy faral di ñu wax lu sori lu kenn du yëg la moom mu di ko yëg doonte léeg-léeg na koy waxee ak lay am day waroo lool waaye léeg-léeg mu annoncé ñu fi loo xamante ni bi tamit léeg-léeg ñu gis ko parce que moo ñu njëkkoon a annoncé nañu. li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, barrage yi ñu tegoon buntu kër Ousmane Sonko dañuy xëy bis rek duñ ko gis loolu am nam ko waxee woon moo ñu annoncé woon it ne ñu waxtaan mi ngi dox ci diggante usmaan Sonko ak nguur gi te moom ak président Macky Sall war nañoo gisee ca Maroc loolu it amut moo ñu waxoon am na yeneen yu bari yoo xamante ni wax na ko amul mais wax ju ne dafa am fu muy ñëwee ak ci période bi muy ñëwee moo ñëwaat encore une fois waxaat ñu ay candidat nañu juróom-benn la ñuy doon mais yemul ci juróom-benn la ñuy doon mais daf ñoo jox ay tur yoo xamante ne nañu nii lay ne te dane ñoom seeni pexe mais ñoom seeni pexe mais est-ce que du ne bu ma koy wax dama koy wax ne ko est-ce que da nga fa waroon a utiliser baatu ñun sunuy pexe parce que man gisuma ni ku génn ci mbootaayu ñoom ñooñu la parce que fan lay yëgee ak ku koy yëgal ak lu tax mu di ñu yëgal lu mel nii ci période bi ak li nga xamante ni moom la def si ne par exemple par nit ñi dinañ doxalee nenn maanaam utiliser aw yoon maanaam pour di fa jàllale yenn message yi bu ko defee nit ñi fëgg seeni dënn ne lii munta ne lii mun ne mais Siré dafa dee tegaat beneen mbir dafa ca tegaat ne nañ leen dajaloo opposition bi ñun ñi nañ leen dajaloo xeex ko loolu la wax ne parce que bu ñu seetaanee rek danañ noggatu kenn wala kenn parce que noonu la war di demee mais gis nga ci jamono ji ñu toll nii wolof dafa am lu muy faral di wax ne kurndobin rey sa maam foo gisati luy ñuul daw Pastef munta wéeru ci lu dul Pastef parce que Pastef ni mu bindoo bokkut ak parti yu bari ni nga xamante ne bi noonu lañu bindoo ñooñ Pastef am na lu bari lu ñu munut te yeneen parti yi dañ koo mën muy tey nga xonk suba nga weex loolu ñi ànd ak Pastef duñu ko doxe te Pastef bés bu ko doxee woon nit ñi ànd ak moom tey dañ koy daldi ba bés bu nanguwaatee bokkaat ci lii siré di woote ñooña ca seen jëmmi bopp xeex bu jëmut fenn lay doon maanaam la muy wax ne nañ leen dajaloo ne duñu ko nangu maanaam bés bu dajaloo boobu amee ëllëg si biir jàpp naa ni ci nangu la jëm li nga xamante ni bi moom la wax nii nag ci période bi nga xamante ni bi moom la ko wax euh, ñu jëm ci ay élection am yu bari yoo xamante ni bii nit ñaa ngi koy njort waxuñu fan la yëf yi fan lañ ko war a jaare ndax ci yoon lañ ko war a jaarale wala ci doole lañ ko war a jaare parce que lépp loo xamante ni bi day am dafa war a tegu ci yoon d'abord parce que yoon moom mooy li nga xamante ni bi mooy tax ñu mën a nekk ci dëkk bi yoon goo xam ni dañ ci ànd ñun ñëpp ñu ne lii mooy yoon li nga xamante ni bi moom la wax noonu lu ñuy def la loo xamante ni bi dañ koy teg ci yoon wala duñ ko teg ci yoon ak buñ dee dañ koy teg ci yoon nan lañ ko bëgg a tegee ci yoon parce que Siré warut a ñëw rek sànni ñu ay missile daal di ne nii la yëf yi ba war a demee nit ñi tamit déggee ko ne bon nii la yëf yi war a demee man dama jàpp ni siré lantinoor la rek goo xamante ni gi dañ ciy jaarale ak diw ngir di ko jox nit ñi di mamaaka moom peut-être am na ñenn ci sénégalais yoo xamante ni ñu ngi koy bàyyi xel di ko déglu bu ñu bëggee léeg-léeg jàllale ab xibaar boo xam ni danañ mën a nelawloo nit ñi ñu jaarale ko fa mu nelawloo ñenn ñi jox leen ko nit ñi am espoir bu dul dem fenn ba tax yu bari nit ñi relâché wu ci ba noppi ñu daadee soog a def li ñuy def wa ilaa dañu ko def ngir préparer pour xam tamit ak daay parce que ñëpp ñu ngi expliquer ne jamono juñ toll ni boo gisee ni nga xamante ni bi noonu la yenn kilifa yi di waxee nga xamante ni bi dañuy wax comme si ni réew mi dafa nekk ci tension boo xamante ni bi tension bu grave la te yow li ñuy wax doo ko gis parce que déclaration yi nga xamante ni bi ñenn ñi dem nañ ci kanamu xalif généraux yi wax ko fa expliqué ne réew mii dafa am ñu bëgg songu diine ji te loolu boo xoolee ci pénc mi doo gis lu ni mel mais mu mel ni dafa mel ni am na lu ñu bëgg mu déclenché te ba tey sunu borom mi ngi ñuy dimbali réew maa ngi am dal am kii est-ce que wutuñu weneen yoon woo xamante ni bii moom la ñuy yëngalee xol yi ngir fexe benn affaire bu ndaw rek mbir am pour ñu jaaree fa pour mën a éliminer élection yoo xamante ni bii ñu ngi ciy jëm parce que ñu ngi jëm ci ay yoo xamante ni bii tey. président Macky Sall teg na ab stratégie Ousmane Sonko teg na ab stratégie ñeneen ñi ci des ñëpp ay figurant lañ ci jeu bi parce que ñaari acteur la am yoo xamante ni bii tey kenn ki mu ngi tudd président Macky Sall ak équipe am kenn ki mi ngi tudd Ousmane Sonko ak équipe ñeneen ñi ci des ñëpp li ñuy bari bari lenn rek lañ du ñaar du ñett du ñeent kenn képp donc do ñaar ñooñu képp la jeu bi foofu la nekk léegi nag Siré daf la bëgg a wax ne la fii ci biir wax ji dafa éliminer benn équipe bi waaw daal di ne ñële ñoom ñooy kii bi parce que lële mooy système parce que système moo fi am ak anti système amul leneen léegi dafa bëgg a wax ne éliminer nañ anti système léegi système bi dong ñooy dem ay élection loolu mooy li nga xamante ni moom la te loolu bu ko waxee mooy maanaam dafa mel ni ku bëgg yëngal xol yi waaw est-ce que nekkul ni pour yëngal xol yi pour ñu bu ñu tegee ay jéego yeneen i mbir am ñu jaaree fa daan ne élection mënta ne parce que yooyu yëpp tamit il faut calculer te man jàpp naa ni président Macky Sall ki muy wureel mën na wuree trop parce que boobu ba nëgë ni depuis deux mille vingt et un ba nëgë ni ñi ngi ci wure woo xamante ni bi kenn xamut fan la yëf yi di mujj ak fan la yëf yi di yegg waaw donc nag sénégalais yi dañu war a ràññee te teey te déglu ñi nga xamante ni bi tey mooy kañu war a déglu te defe naa ne waa Pastef yi ñoom jamono juñ toll nii ñi ngi ci lool parce que liñ leen Ousmane Sonko waxoon ne leen xeex bi ay stratégie la jamono ju ak façon bi nga xamante ne bi moom lañ koy defee defe naa ni loolu moom waa Pastef yi ñi ngi koy jëfee te xam nañ ñi nga xamante ne bi noonu lañuy def lenn li xeexu politique la te ña nga ca leneen li di xeex boo xamante ne bi lu jëm ci wàllu yoon la avocat yi aussi tamit ña nga ca loolu mooy li nga xamante ni bi mooy léegi nag leneen li ngeen di gis ay contre-feu yi ñuy taal ci jë kii bi yooyu yëpp nee woon na bàyyi leen ko te bu leen ko topp yenn wax yi jarta sori parce que yow xamal ni fi nga jëm li ngay li ñuy joxe sénégalais yi ñoo koy joxe du président Macky Sall moo koy joxe la la fay yóbbu yoon moo la fay yóbbu ndax yoon xañ na la ko wala xañu la ko loolu mooy mbir mi amul keneen koo xam ni mooy mën a décider leneen yoon toppal yoon teyit toppal sénégalais yi point leneen li ci des jarut ngay xool ba jàpp ni tey jii am na yoo xam dañuy jël affaire bi di wax ba mel ni tey président Macky Sall mën naa jël nguur gi jox ko ku ko neex te yëf yi mënta tëddee noonu mënta nekk ni moom mooy choisir ne yëf yi nii lay tëddee loolu ay bëgg-bëggam la ay bëgg-bëggam nag ñii di ko wax naan lii wag lii nii la yëf yi di demee ñoo la koy accepté loo pare na saa yow sénégalais bi nga xam ne yaa ngi toog jàpp sa njàmbur nga dem ba jàpp ni président Macky Sall de lu mu bëgg mën na ko am bu doon lu mu bëgg mën na ko am kon defe naa ni situation bi du demee nii ci jamono ji ñu toll nii kon xam leen ni li ñuy laaj yi sénégalais yi ñoo koy joxe li nga xamante ni bi aussi tamit moo la yóbbu ngir nga yegg fa nga koy laajee yoon moo la koy may ne la am nga sañ-sañu. yegg ngir laaj toppal yoon toppal sénégalais yi bul topp beneen contre fa ci yoon bi loolu rek mooy li nga xamante ni bii ci lañ doon wax ñi ngi nuy ñëpp nag ñi nga xamante ni joxe nañ seen xalaat ñu joxe suñu xalaat ci seen xalaat dama jàpp ni réew mi noonu la mën nañoo pare tamit keneen gis ni li ñu wax am na ci yeneen gis-gis bu boobaa tamit mu wax ko parce que am réew lépp lu xew rek dañ ko war di waxtaane parce que wax mën na fànq lu bari nañ leen di waxtaan parce que bu ñuy waxtaan rek mën na am jafe-jafe gu bari mën na bañ am ci réew mi mbokk yaa xarit yi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi doon teewlu émission bi di nuyu alaaji Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo ak fàllu di nuyu son bu Diop directeur programme Assane Mesere ruubekat gi ci kër gi ñuy joxante digg daje beneen àjjuma ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf